sant yàlla suñu boroom julli ci yonent bi sant Serigne Touba sant boroom Daarul Muxti daa mel ne liñ fi wax kenn mënut wax lu ko gën a kawe waaye nag ndigal moo gën a kawe lépp ba tax sama kilifa sëñ Basiiru jox ma ndigal ngir ma yëkkati kàddu ngir sant lii nga xam ne moo am tey jii ci daarul manaan mu mel ne cant gi ak nuyoo bi dañ koy tàmbalee sëñ mu Mountakha ñu fii sëriñ Touba ñaanal ko mu wér te yàgg fi ba naal yi mu naanal sëriñ Touba mu àggale ko ñaanal sëñ Basiiru moom borom daarul moxti mel ne liñ doon wax lañuy ñëw di àggale rek ginnaaw ñaan googu ñu ñaanal sëriñ Basiiru moom sëñ moom borom daarul moxti di ko ñaanal wér ak gudd fa ak àggale naal yi nga xam ne naalal na ko waay juróom ba mu àggale ko ci jàmm waaye di nuyu nag ak ziar njabootuk borom daaru muxti gi yëpp jaarale ko ci sëriñ xaadim moom sëñ mu Modaw Balla waaye wax jëpp nag dafa am ci fu jëm sëñ Basiiru wax ne nañ ko jëmee ci moom muy jàmbaar ji tëdd fii ci suñu gannaaw muy Cheikh Sidil Maxtaar yaa xafaar ñuy sàkku mbooloo mi fi nekk ñëpp ku nekk fa jàng faatiya ak fukki lixlaas ak benn ñaanal ko sëriñ Cheikh Awa Balla ak doomam ji tëdd ci wetam sëñ Mourul Maxtaar ak ñey tëdd ci armeel yi ci penku bismillah mu mel ne cant gi nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati di ko tant sëñ maam Thierno damay wax ne képp koo xam ne ab sëriñ lañ lay tudde war ngaa roy ci sëñ maam Thierno ci ak njàmbaaram ci jomam ci bëgg lu baaxam ci ak tabeem ci am fullaam kenn mënut wax dara lu am daarul muxti te amul daaru mën naan te ku nekk xam na boroom daaru ba muy jóge daaru nam bàyyi woon daaru waaye nii ñii tamit bu sëñ Cheikh Awa Balla demee léegi xam ngeen ne yàggut yéen a ngi fi woon xam ngeen li fi sëñ maam Thierno def njàmbaaruk sëñ maam Thierno gi mu doon na sëriñ Cheikh Awa Balla ndax ku ne xam nga ne ci yoonu murit sëñ Mouhamadul Bachir mii waajuru sëñ Muntaxa mii ak Serigne Cheikh Awa la li ñu sanc ay kër ak i dëkk benn Serigne sanc ko amul benn région booy dem ci Sénégal te doo fekk Serigne Cheikh Awa Balla dafa mel ne dafa am loo xam ne borom daal da koo tijji tibbee ci boppam sottiwaat ko ci Serigne Cheikh Awa Balla Serigne Cheikh Awa Balla nag jënaat lépp rafaatale ko maam Thierno. bu ngeen xoolee tey ñi doon wax nii rek muy sëñ mooy diin ak sëñ Ousmane mii ku ci nekk ilimaan nga ca dëkk ba nga ne te defe naa ne ab sëriñ loolu lañ taamu ci moom ñu dem ba nekkat ilimaan jii nekk ci dëkk bi ci njabootu borom dëkk bi la jóge loolu sant yàlla la moo tax sëñ maam Thierno sëñ Bas nee na mi ngi koy ñaanal njaboot sëñ Fallou si gépp ngi koy ñaanal yàlla mi moom wér yàlla na ko wéral yàlla mi yor aw fan wu gudd yàlla na guddal aw fanam ndax sagub kër borom daaru la de sëñ maam na foo ko tuddee rek ñu respecté kër borom daaru ndax melokaanam gis nga njabootam gii ni mu mel ci ñoom yenn saa yi dama leen ciy tooñ ku ci fanaani woon Tamba mu woo ci guddi gi na la na nga julli si fajar xanaa fajar fekk la ci àll bi waaye du doo fa toog te noonu la ñuy yare ak njaboot. te noonu la sëñ daaru mën naan yar njabootam gi li ko tàmbalee ci sëriñ siidi sëñ bas nee na mi ngi lay sant bu baax ci sa ak woyof ak jàpp jàppandal gi nga xam ne jàppandal nga ko liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ maam Thierno joxoon sarak ji di sëñ mooy diin ndax fii ku fi ñëw gis mbooloo mii fi daje xam ne baatu kilifa dong moo ko mën a génne kon nag sëñ Sidi na nga ñu jot lil sëñ bi cant googi di sant sëñ Mbaye Guèye Sylla ci wax ji nga xam ne wax na ko fi léegi ci soxna Faati Isa ndax ñun li may faral di wax rek ci sëñ Basiiru mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Fallos ji di suñu kilifa ñun te mat ko sëkk nag ndax wuute sa baay wuutu sa baay ci ak ndaw lu toll ci fukki ak ñeent di gis ku ne fu ne yàqkat di fa jóge di ñëw di la wax ngay faxasu di góor góorlu di liggéey ba indi fii liggéeyu baayam bi ak si tey nga xam ne jàmbaar la maa ngi ñaan ci barke Serigne Cheikh Awa Balla mii ci suñu gannaaw suñ borom may la fan wu gudd may la wér te may nu ko ndax li la sa jur bàyyi lool mandal nga ko sëkk sëriñ ba saa yoo ñëwee ci moom gën a yàq rek bu gën a fonk saa yoo ñëwee ci yow gën a yàq rek bu gën a fonk ñun ñii di ay rakkam nag loolu ñoo ko mën a seereel ndax ku ne xam nga sa bopp te xam nga tamit xol bi ko yàlla may ndax xam nga yoonu murit noonu la baaxoo ci biir kër yi kër yu mag yi daanaka téeméer yoo gis juróom-ñaar fukki yàqkat la ñuy doon waaye fi ma xamee ne mat na sëñ fàllu rek saa yu xëyee yànq ba ngoon rek bu xëyee nekk ca la nekkoon rek wan ñëpp gannaaw jublu baayam te li nit ñi xamul ba léegi mooy gis nga ab xalifa kër gum nekk néew doole rek kër ga daanu moo tax ñun suñu jom ak suñu fulla mooy ñu fexee doole suñu xalifa yi ba jam doole ndax bu ñu néewee doole rek kër yi daanu te ku xeex sa xalifa baay rek sa baay nga xeex moo tax yenn saa yi nga dem ci ab dëkk dégg coow ñu naan diw day défier sëñ bi daa xamul rek ndax koo xam ne sa mbaam amoon na sanc xëy bàyyi fab sancam fekk si sa maam mi nga xam ne moo sancub sanc ànd ak moom di liggéey ba tey nga xëy ne da ngay kooka te boo amee courant mooma soo amee ndox mooma su gendarmerie nekkee fii di la aar mooma su ay làmp ñëwee mooma su fi ab tali ñëwee mooma soo lekkee lu baax mooma nga xëy ne danga koy def yi amoo jom amoo jom nit ku am jom du def yi xalifa kër baayam te gis nga sëñ maam Thierno exemple ci àdduna waaye nag fi mu bokk tax dafa am lu am solo mooy soxna si ñuy waxtaanee tey doomam ji maam Thierno Birahim dafa am ñett yoo xam ne ci Serigne Touba kenn amu ko te kenn mësu koo am te kenn dootu ko am ba faw bi ci njëkk mooy Serigne bi dem ci géej gi dénk la njabootam ba dellu si dootu ko dénk keneen ndax loola jeex na damay wax ne man ngay tudd ku nekk sëñ Touba 1880 1853. ba 1895 muy dem ci géej gi man ngay tudd sëñ Touba ku ne 1902 bi mu jógee ci géej gi ba 1927 muy dem Touba ba bisu tey bi nga xam ne lépp a neex waaye 1895 ba 1902 sëñ bi nekk ci géej gi boo nee Ceerno lu tuuti nga ciy teg moo tax yéen li ngeen xam li ngeen yor da ngeen koo war a xam kenn du ma am bi ci topp mooy mu am wayjur ñu koy wax soxna Faati Isa Jóob mu am ñaari cër Sëriñ Touba yoo xam ne sëriñ tubaa da koo royee ci yonant bi benn bi mooy sëriñ tubaa jël jigéen dugal ci biir bàmmeel yonant bi benn jigéen la ko mos a defal Serigne Touba kenn kooku la mos a defal keneen koo dégg ñu ne Serigne Touba defal na ko ne dañ lay nax moo tey leen liggéey am bu leen ko sàggane li coow lii bari bari liñ la mën a wax mbaax ku ne waaye Serigne Touba tudde na doom keneen ku dul soxna Faati Isa amul. wooye nañ ko tur wu ne ndax bëgg tur wi raaf mu ji sëñ Touba mu baax ma woo sëñ Daam Abdourahmane Lo ne ko nañ koy wax soxna Jóob Mbàkke ba ñëpp xam ne sama waajur wu jigéen wala ko tudde ba tey jii boo demee ndaam doomam ju baax ji wàllu yu sëriñ Cheikh moom sëñ Daam Abdourahmane Lo màggal gi ñuy defal soxna Jóob Mbàkke at mu ne sëñ Maam Faat Isa lañ koy tudd soxna Maam Faat Isa lañ koy tudde kaamit ba mu bindoon soxna Isa soxna soxna Jóob Mbàkke lañ ci bind lettre yi bindoon tamit li sëñ Ousmane di wax ni. bi mu koy tàgg borom daaru. bi mu koy bi mu bindoon it mi ngi fi. xam nga àdduna dafa jaxasoo communication yi bari waxkat yi bari àdduna kenn xamul lu mu doon yow nag suñu boroom dénk la or dénk la jamaa ngay sàggan di yokk kokki di yokk ba benn waaye ñëw yor përëm ne la ko jàpp jël sa or yóbbu lànk leen. kenn du maam Thierno ku ne dégg ne sëñ Touba denk na maam Thierno ndax kenn mus naa dégg ne sëñ Touba nangu na la mu dénkoon maam Thierno li waxkat yi wax wax doo dégg ñu ne la bis sàngam la sëñ tubaa woo maam Thierno ne ko la ma dénkoon indiwaat ko man kay murid yëpp ngi ci loxol Thierno ku nangu yaa xam ku gàntal yaa xam waaye li fi gën Thierno ko yor. nga dégg de ak maa fekk ba Thierno jébul. waaw ah, léegi sëñ Bay si la wax nee na moom maa fekk ba Thierno jébul tam doo ko dégg. Eh, man nag du ma conférencier <laughs> waaye nag damaa fe damaa yàgg ak mag ñi dégg seen waxtaan rek xam dëgg di ko wax dong nag waaye conférencier yaa ngi nii boroom xam nga ah. waaw ndeysaan dama daan fàttaliku jàmbaar ji tëdd fii sëñ Modou Maxtaar danaan daw ba yàgg mu ne cey buñ wootee woon ab guerre <laughs> kon <laughs> moo tax ñi xamul daal xamuñu waaye yéen jàpp leen ci li ngeen am na ngeen dem ci yéen jolof te ci yéen dafa gën a doy waar mooy jigéen ju taxaw bu mënoo am doom dem fa ñaan ko fa ñibbi sa amoo ko yombul de. ah sama waajur sëñ Fallou Sadiya daan wax ku ñëw ne ko ñaanal ma doom mu ne ko fekk ma ci yéen. waaw <laughs> moom la daan saafaraa lépp lépp lépp kon nag guddi na waaye jigéen ñi maa ngi leen di dénk seen diggante ñi ngeen nekkal ci biir kër yi seen diggante ak seen boroom kër yi roy leen ci maam Faat Isa ndax ngeen am maam Thierno maanaam ma fi jóge waaye jëf ak jikko du fi jóge ak lu baax te ko def rek gis nañ góorgóorlu bu baax ndax xam nañ ne tey Thiéyène fu mu àgg jigéen ñoo ko fa àggale moo tax ñoo ngi ñaan ci barke bu Mame Faty Issa ñi teewa jataay bi jaarale ko ci sëtam yi toog ni soxna buri mii ak soxna Faty mii moom sëñ Moustapha May soxna buri sëñ Basiiru Astuloo ndax mënoon naa lim waa Daaru Musi yëpp waaye kuy liggéeyal Ceerno ba àdd ak sëtub Ceerno dëgg lañ lay wax ci lu baax ñu tënk ko ci sëtub Ceerno ngeen bokk sant nañ leen bu baax ci taxawaay bi ci jógee gi ngeen jóge daarul moxti ànd ak ñun ñëw gunge suñu fii daaw ngeen defee ko noonu gunge ñu daarul mën naan gële ca Touba gox sëñ Abdourahmane ku ne gis na meloon xam nga boo gisee li ñuy def nii yëpp jubluwuñ ci daal loolu wane ne sëñ Fallou Sadié daa ubbi bunt bi rek waaye néeg bi moom ñëpp ko bokk ku bokk ci Thierno rek yaa ngi soxna Fallou Sadié yaa sëñ Fallou ci yem te noonu la ko sëñ bés mi gëmee moo tax li muy def bu koy def su màggal gi jubee bi ñëw di seet sëñ maam Thierno maa moom ànd nañ ñaar yoon ñëw fi jaar sëñ mooy diin ñu ànd dem fekk ko fële du la bàyyi sax ne la demal waaye day ànd ak yow sëñ Bas maa ngi lay ñaanal suñu borom may la fan wu gudd. vraiment dérangé woo ñu ci dara yàqaloo ñu dara te lii nga am maa ngi lay gijël Cheikh Ahmadou Bamba ne na naa la ko loo am ren bu déwénee ne yàlla na nga am lu ko ëpp ndax li ngay muñ ay doomu aadama saa yu xëyee ñëw taxaw temm ci tàqal la ak say rakk nga lànk rek loolu nag sa bàyyi gis na ko sëñ Fallou sa jéey ndax am na seytaane yu mag yoo xam ne fu ñu dugg ba génte yàquñu ko yàlla la dimbale kon nag war ngaa sant yàlla bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah